man tase Amerik, ak nit Namanya mhm. mu gis ma rek yoy from Africa mané ko yes rek mu jooy kott ma téye sangara mo suba TikTok set ko. Mhm, si mas naa ko gis way mané ko lan la mu ne dafa dem ci jumaa ji di julli julli ti diko daw ngir mu ngi téye sàngara. may wax ak mom muy joy di wax ak mom muy joy ba léegi suma xarit la mu fi wara ñew set ci ma. bayina na léegi man mi julliwutoon doon doxi ak ñi nekkoon ci jumaa ji daw jullit ba mu mer di naan ku ciy jullit pratique gu lislaam julleek or daf lay yóbbu ci am mbëggeel ak yërmande ak yaatu dënn boo ko amul rek da perte macha allah kon oustaz Modou Fall li mu wax moom ñàkk dégg alxuraan ak tënku xam-xam ak gàtt xam-xam ko ko wax ak gudd làmmiñ rek moo tax Maodo ne moytu leen borom làmmiñu gudd yi ci xel yu gàtt yi fu ñu waxee rek yàq ak musiba la ñuy def Kële Sarr moom ñàkk a màndu ñeme yàlla. Hmm. moo ko dal yeneen ustaas yu tojuñ dégguma leen. d'accord ma aaya bi nekkul ci alxuraan mu nga ci. Hmm. Hmm. jàng neen ko mënta réer mais dafa xewi. alxuraan dama ne am na aaya yu xewi. fi yàlla daga ne la woon alxu sàngara ne bu bu leen ko naan su ngeen di julli si. xewi na di bu xew léegi. dafa xaram. am na yoo xam ne urgence la. am na yoo xam ne wareef la du wàcc. am na yoo xam ne pour dégg rek la mais doo ko mën a jëfee. am na yoo xam ne pour yéemu la. Mhm. ngir xam kàttanu yàlla. am na loo xam ne ci alxuraan du dëgg de. Hmm. amut de léeb la léeb yàlla moo ko léeb rek. d'accord mais et pas vrai. Hmm. c'est comme téléfilm bu ñu téye rek nga xam nga théâtre mel na ni dëgg la. Hmm. mais du dëgg. dañ lay woon pour nga xam ne lii am na. waaye yàlla da doon léeb ci alxuraan di taaxuraan xam nga di songé di filaale noonu pour ngeen xam mag màggaayam loolu la ci jublu. mais c'est pas vrai. d'accord Serigne Cissé donc am na tam ci alxuraan loo xam ne ñëwagul. mu ci kanam man duma ko fekkee yow doo ko fekkee. Mm, mm. suñ dund. Mm-hmm. mais nag daf ñu fay fekk. loolu mooy alxuraan doo ko fekkee. Mm-hmm. Mm-hmm. duma ko fekkee mais daf ñu fay fekk. d'accord ku xamul distance yu ndaw yi mënoo xam alxuraan. jërëjëf Cissé waaw booy faal na yem ci yii mu xam rek ah. message est di jaxase boppi nante yi ma koy seetaan loolu duma ko mën a def. sëriñu nante yi borom ànd laa bëgg ànd laa bëgg une see bañ a wax sëriñu Cissé balaa temps bi di jeex.